asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 17 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey dooleeti ko yëglikaay ba nag tey moom këm ñu xëy indil mooy borom taq ci rib muy tafaatin mu nga sol ay gaam nag taxaw di sànni ay loxoom ka muy waxal nag du kenn ku dul Lac de Guiers numéro 2 tafaa daal nee na li am ba des daal Lac de Guiers numéro 2 moom bu nu ko séqaatee daal la mu ko a def daal nana daal imposé ko li nga xam ne nii moo di ab xeex daal la ko nar a tegal xeex boo xam ne bu keroogee moom dana saf-sap mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom seen ñoom ñaar ñii muy tafaa di Lac de Guiers daal daa mel ni combat ba ku nekk yaa ngay sànni sa ay morom xeer jàppal sunu laam ne na daal heure ba daa mel ni fi mu nekk nii daal heure revanche ba moom sone na mu mel ni ki nag wàllum xeex daal Tapha Tine moom teel na ko caa wax diggante ma ka nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko am na combat boo xam ne nii moom daa mel ni gént la woon maanaam reef la woon nit ñi daan ko xaar ngir daan xaar bu ñu bëree technique ba ca war a mën a am wala xam-xam waaye da la fa lépp doxe tàbbi géej muy diggante Yékini ak Eumeu seen ba biig ca ngoon jotu ñoo bëre ci seen carrière mu mel ni ki Malouk Thiandoum tamit wax na ca loola jàpp na ne day loolu nekkoon na loo xam ne nii daal askan wi bëggoon nañoo gis ñoom ñaar ñu bëre waaye nag na gis nga tey fa mu mujje affiche de rêve maanaam affiche boo xam ne gént la woon te mujjuñu ko bëre ñoom ñaar keneen koo xam ne ni moom mu ngi bëre di wane boppam muy maama Lamine mbër la moo xam ne daal sunu làmb xëy na tey ñëw ci moom fa mu jaar ak bursin jaar fa ak jokkeel mel ni ki nag moom falaam la boo xam ne nii daal loo ci mën a dégg daal mu nga ca aw yoonam de di dem di wane boppam bu baax a baax a baax sunu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni kii noonu ci xale ba nga xam ne nii mooy xale bu tarkindaa ba dëkk fa nga xam ne mooy ca jàmm gën yëglikaay bi tamit ñëw na ci koo xam ne nii daal jàppal soo bëggee dégg-dégg daa mel ni moom VIP yi moo fi nekk di leen sauver wala boog mooy ñëw ren sauver si leen muy Gaston Mbengue ginnaaw Balla Gaye numéro Gris Bordeaux Eumeu Sène Bombardier terewu ko tamit mu ngay lijjanti yeneen bés yoo xam ne ni daal yu mag a mag la yëglikaay bi xëy tey ñëw ci Gaston Mbengue wan ñu ko am na ni moom bu tëggul avis affiche yu mag tamit affiche yu ndaw ya muy tëgg neex na ba yàgg ci lool muy ama events maanaam Boubacar Niang taxawal na xeeru ngor numéro 2 ak Boy Diop sunu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal Boubacar moom tamit fa mu nekke mu nga fay def la mu man yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy booy Niang yëglikaay bi jàpp na ne est-ce que amut boog li muy ragal ci digganteem ak Tapha ba tax mu préféré Lac de Guiers numéro 2 sunu làmb xëy tey ñëw samp boobu laaj mel ni ki bu nu nag moom daa mel ni laaj booba tontu wees na ko fa te ko tontu nag mooy Moustapha Kandji bu dee démb gisoon nañ ne Boy Niang lag de Guiers numéro 2 daal la wax ne moom la bëgg a bëreel ngir ñu leeral daa mel ni kii nag tey jii moom Moustapha Kandji ma yore wàllu sañ wax ga ca école de Boy Niang wala boog yoral ko Boy Niang maanaam communication xëy na di leeral nee na li am ba des daal na leer ñëpp naka ñun fixé nu kii wala kële nee na déeréer nee du kii la ñuy fixé wala kële du tafaatin du Lac de Guiers numéro 2 nu làmb booleel ñu war a ak moom dañuy bëri ak moom waaye kii wala kële Tapha Kandji ne la loolu moom amul te Boy Niang gëj ngeen koo gis muy wax wala ci li ko wër nee na fi mu nekk nii daal Boy Niang ca la mu mooy entraînement bu wax jotee ñoom ñi war a wax danañu wax bu tànn adversaire jotee tamit ñoom ña ko war a tànn danañ ko tànn moom entraînement ak bëre la ñu ko sant Moustapha Kandji moo wax loolu tey jëmale ko ci ay Boy Niang ci record ci ay leeral ba tey bu nu continuer dëkkandoom ba ca Pikine moom daa mel ni moom bu remonté daa amee ci football bi moom itam def na ko ci làmb ji ndax boo bëggee dégg-dëgg daal ba mu jógee ca defetam ba ca atum 2012 diggante ma guy gi Balde dafa mel ni daal fett gu mbër sànni maanaam fu mu jaar wane na fa boppam ku mu jàkkaarloo daan la jéggi dem mel ni ki nag moom Ama Balde mooma record ñëw na tey ci moom ak ndam yu rëy yoo xam ne ni teglante na ko ba tey ni mu war a ñëwee taxaw nag war a jàmmarloo ak ki nga xam ne moo di Modou Lo di roi des arènes yëglikaay bi di record a xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni tamit xay na moom remontada lay wër wala mu bëgg a wane boppam ba tax mu xëy tey di laaj ay adversaire muy ki nga xam ne moo di pakala bu mbuur yëglikaay bi na pakala daal ña mu xëy waxal ñenn la neex bu tëngéej Malick Niang bu yof Yékini Senior bu Dóor waar Moussa Ndoye bu Yaraax ñii daal la jàpp ne ñoom ñeenti ñi moom képp ko ci jëlul ku ne Pakala jàpp na ne da nga koo ragal waaye tegoo ko ci aw yoon yëglikaay bi ne nag jàppal palmarès su Pakala onze victoire la benn wala boog benn match si niil ak li nga xam ne moo di ñaari defet lii la Pakala def am na koo xam ne ni moom combat bi boo sàggane day fa mu nar a mujje ak est-ce que déggoo dina ca am diggante waa GFM ak ka nga xam ne moo di rëg ndax nag daa mel mu nekk rëg-rëg mi na tërëj ñooñu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal ñu nga ca dernier virage ba ngir combat ba ndax nag mu mel ni ki nag moom ca dernier virage ba la ñu nekk ngir combat ba te itam boo sàgg ni day rëg-rëg nar naa rëj ndax nag ay fan lañ joxante woon te daa mel ni fan yooyu mu ngay dox jëm ca jeex buñ ko joxul adversaire bi maanaam daal day wëri leneen wala mu seeti leneen record ñëw na tey ci mbir mu mel ni ki noonu am na ñoo xam ne ni moom la ñuy wër daa mel ni fi mu nekk nii saa yuñ ci waree jot rek bu wër ba jotee ñu jot man daal tey dinaa sama bopp cité sama bopp yàgg maar képp kuy supporter Real defe naa biig sa xol sedd na waaye terewul nag sunu wujj yi nga xam ne ñoom du duñu tàyyi duñu noppil ñu nga naan championnat corona la ma ne leen jërëjëf bañ ko organiser toogu ngeen da ngeen caa bokkun di xëccoo xanaa ñàkk caa mën a jot a am kay waaye daal yàgg maar képp kuy merenge man Babacar maa ngi leen félicitation di wax ñi des nag nañu muñ te di xam leen ne yoon yemul ci benn yàgg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 Benzema deux buts de Benzema. jaajëf ko maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu internautes yëpp waa di la wax merci ah. waaw parce que comme ni ñuy wax rek du mën a ñàkk yow tamit di la féliciter ndax xam naa ne championnat France moom yaa koy jël. non jël naa ko pare ok ligue bi laay xaar voilà ligue des champions PSG. jël xam naa naa ko jël tamit. ñaanal ma rek waaw waaw waaw yàlla baax na day damaa toogagul looloo tax du ma la mën a goo ñaanal <laughs> waaye daal maa ngi félicité képp koo xam ne yaa ngi supporté Real rek di wax ne que daal loolu moom comme ni ma wax démb rek du information Real jël na Liga wala jël na Ligue des champions wala coupe du monde des clubs coupe du roi moom du information mooy saxaar gi ñëw na à l'heure kon di félicité tous les mbérengue ak fu ñu mën a ne si àddina bi rek di wax ne xam nga euh, ko couleur sax dañ koy tànn gis nga li nga sol nii dafa neex ci bët pour mu xool li ma sol nii même chose mais xam nga jël say couleur jaxase koo jaxase moo tax ñu naan ay na corona yàllaa ko fi indi ku ko mën a alhamdulilah ñun ñu ngi ko résulté ba jël liga bi. xanaa waa Barça ngay waxanteel mais Sergio Ramos. <laughs> mention spéciale Zinedine Zidane nag moom dama naan moom mooy l'homme de l'or moom or la xam moom. l'homme la. or or waaw d'accord maanaam coupe du monde jël lépp lu mu am na ñu wax tout coupe d'Europe jël na ko ci tànkam waaw lépp mu jël ko par or or or kon kay Zidane mooy borom or. macha allah mais Ramos kenn du moom waaye Benzema mooy neuf bi dàq dugal. gën a technique ci àddina bi attaquant bu garaaw jour noonu lay mel. ah équipe de France nag kon boobu war nañ ko mën a woo nag. buñ ko wut ñoom la rek de ñun de mu ngi nuy bëggal man France moom waxuma ci ñoom lenn. Barça nag loolu di wax. borom non ñooñu moom amul lu may wax ak ñoom <laughs> ñooñu moom. mënu maa wax ci ñoom parce que li ma championnat boole rek. Mm. waaye du nuy morom. Ah, heureusement moom du ma Barça moom PSG la bàyyi ma rek si français yi. ba si kanam muy tafaatin moom daal mi ngi provoqué ki nga xam ne moom mooy xeex kon moo dina neex <laughs> ndax ñaari xeex kaa kenn ñu woowee le puncheur kenn ko woowee borom takk si rib waaw danañu xeex ñoom ñaar moom xam naa ne li may ñaan daal na combat ba taxaw waaye xam naa ne xeex moom faw ñu def def ko ñoom ñaar bi yoon xam nga bu njëkk ba boo xoolee xeex jotu faa am lewaatoo la pièce tendre pièce lewaatoo tendre pièce ba lak jékki wàcc rek tibb tànku tafaatin daan ko bi dugg na at yi dugg na liggéey bi dugg na gën a professionnel bi dugg na loolu lépp dugg na tey tam macha allah ci côté koom it gën nañoo am ak yokkute yooyu yëpp boo ko dajalee nag moom xam naa ne bi yoon bu ñuy bëree pour kenn daanu dana balaa jël am moom ay loxo dina jóg moom. na mel ni mbàccum mu raw ko kay. <laughs> Ah, moom daal li mu gis daal moom nee na <laughs> l'heure de la revanche a sonné nee nag seen revanche nag jot na non il est l'heure man la la waxoon dama ciy jóg ndey kumba 1 plus 1 1 plus 1 la mooy Tapha ak Lac de Guiers numéro 2 dañoo war a bëri ok li ñëw nag euh, si beneen euh, euh, beneen information bu nu suñu làmb indil nee nañu nag ki nga xam ne moom mooy Boy Niang mii laaj revanche ak Lac de Guiers bi nga xam ne moom la bëreeloon daaw tamit Boy Niang mii ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine waaw bu dee ragal de moom dama naan est-ce ragal du ma gëm lool parce que li tax mooy Boy Niang mbër la bi nga xam ne nii defe naa ne mu ngi ci làmb di wane boppam en tant que jeune boobu ba tey defe naa ne du ñëw ba fii xanaa di ragal mbër dafa fekk nag nit ku ne am nga droit am sa objectif wala nga ne lii laa bëgguma lee loolu moom am na si plein waaye comme li may wax rek bu ñu waxee ñun ci cadre sport ak lamb mook Lac de Guiers lamb la waaye mook Tapha Tine lamb la te mook Tapha Tine dafa mel ni moom la askan wi di gën di solliciter mm. ñun ci gëstu ñuy def wala ñuy jële ci nit ñu di ko wax waaye nag pataas sama gënal ñam bi dañ ko président bi waxee woon rek nday ko ma bu ñu la ci tëjee sa avocat daa baaxul sa avocat moo aayu waaw waaye na ñëw nag si beneen combat bi nga xam ne nag amateur yi bëggoon nañ ko lool mais nag yàlla dog na dogal na nag combat bi mujj woon am bu euh, muy combat diggante Yékini ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène ndax bu Yékini nekkee war roi Eumeu Sène topp na ko fu nekk léegi nag bu Yékini perte roi bi Eumeu Sène daal lu mu indi daal maanaam

Jili du ñàkk ñu may ñu ko benn combat comme ni ñu Père Mbaye Gueye def loon ak duubalees waaw loolu tey mën na nekk waaw waaw euh, Babacar ki nga xam ne nag moo ñëwaat ginnaaw bu mu defee entraîne daaw muy euh, benn promoteur promoteur journaliste lu luy luy am fii Sénégal muy Babacar <laughs> Sow Ama euh, borom Ama Events moom nag indi na ki nga xam ne mooy xeeru ngor 2 ak Boy Diop li ma jaaxal na def naa Boy Diop kii moo ko jëlee Gibson Gibson moom moo delloo avance su Gibson. non non non Petit euh, Petit moo delloo ah, avance su Gibson voilà kon boo xeeru ngor moom mooy euh, bu nar a bëri ak Boy Diop. waaw loolu Ama Events la di suñu confrère Boubacar Niang ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla tamit di suñu lamb yëpp ñoom Ibakan ak ñi fa nekk euh, ah. waa li am na solo parce tamit olof nee daal ku yokkul yaa wàññi mm.

ki nga xam ne mooy Jokkel ak Boursil moom daal mi ngi si kaw daal toog na daal si kaw Donka City comme ni nga ko waxee waaw Mama Lamine day day xale boo xam ne ni muy bëree moom yaakaar naa ku ne gis na ko at yi man par rapport ak bu arbitre soufflé day ñëw li mu bëgg mu wut si ko ba yàlla may ko ci lam cay soxla maanaam nag boo xoolee ndam yi mu teglante muy Boursin muy Jokkel ku ci nekk xalaatoon nañ ne war na faa mën a jëlee leen lu dul victoire waaye fexe na ba am fa victoire moo tax nag tey yaakaar naa foofu mu ne ah, war na fa mën parce que lu muy liggéey la di ko wane waaye nag dafa jëm ci combat boo xam ne combat bu critique la mm. mu am adversaire bu critique bu mën a bëree bu coriace muy Garga 2 ndax fa nga yaakaar ne seen lamb fa lay jeexee yaakaar ne des fois ngeen romb fa wala ngeen bañ faa yegg waaye xam naa daal ñoom ñaar bu waat bi suuf leen day kumba xalaat naa jël bu rëy nar na faa am diggante garga de ak maama Lamine mi ne mooy tarkindaa day moom nee na loolu <laughs> jaaxaleen ndax bu ay naama lañu waa ma gën a xam Siteu loolu waxu waxu làmb la yaa ngi dégg waaye nag buñ ca yeggee ah am la wax ah, waaw suñ jógee nag suñu làmb nga xam ne mooy record record nag dafa xat dafa xëy nag dalal ki nga xam ne mooy Moustapha Kandji di chargé ki nga xam ne mooy la de guerre de moom daal nee chargé communication communication Boy Niang 2 <laughs> moom daal lu mu mu gis daal moom nee ki nga xam ne mooy Boy Niang 2 deful benn fixation si benn mër képp ku ñëw rek baax na waaw loolu de wax ju leer nañ la parce que comme démb par rapport li ñu gisoon nag tey li mu génn wax defe naa ne ay leeral la indi kon moom Kandji buñ ne Boy Niang da doon fixé ci Lac de ni jëlaat ko ñu leeral mu gënal Tapha Tine mais ni Kandji loolu la xëy di ko leeral muy loo xam ne nag olof ne na wedd du sa der la xëy na loolu la xëy tey di ko def yaakaar naa tamit lu may jàpp mooy Boy Niang war mooy euh, xale boo nga xam ne jóg nga am encadrement def sa carrière ba yegg si fii te am na ñoo tëbandooloon ci làmb xëy na daw li la ko indi ba fii di ko daal di ko moytuloo ak du tere nag am nañ plan carrière comme ni mu ko waxee ne lii lii la lii la lii la parce que dañuy ñëw adversaire bi adversaire bi nga xool yow nga yaakaar na làmb boole na leen waaye yaakaar naa daal Euh, lii laay def noonu noonu non comme loolu kañ wax daal defe naa ndey kumba mooy li jar jàpp te itam defe naa ne nag mooy li leer. waaw ah, mijuna bi tamit ñëwaat na si euh, remontada wu euh, Ama Balde ndax ni ko xamee woon fan si Riyad. <laughs> waaw waaw <laughs> remontada Ama Balde nee ñu depuis 2012 daal déggul mu ñëw Babacar. waaw Ama day loo ci mën a dégg xam naa ne daal mbër la mi nga xam ne niñ ko gisee ci làmb defe naa ba ku guy gi daane ca seen combat bu metti booba hmm, ba mu ci jógee ba nii taxawaatul wala képp ku jaar si kanamam bokk. jàll na sa kaw maanaam effacé na la daan na la dem muy mbër moo xam ne loolu nag li ko ko may ci lu ñu mën a wax mooy sañ-sañ bi muy bëree ama xamul yow li nga mën mais moom li mu mën la la lay indi ak li mu bëgg te bu ñëwee da koy imposer ay adversaire am même combat boobu ku guy gi daanoon ku ne gis na ne kera la mu bëgg lay wut di ko wut di ko wut ba defet fekk ko ci hmm. te loolu tamit soxla nañ ko ci mbër yaa ngi dégg loolu bokk na tey ci li ko indi ci niveau bi ba tax tey mu am sens mën a bëri ak roi des arènes parce que sañ-sañ dafa baax ci mbër loolu nag fooram la ba nga xam ne nii moo tax xëy na adversaire yi mu jànkonteel ci diggante boobu yëpp mu daan leen muy koo xam ne daal macha allah mu ngi ci lancé bu baax a baax a baax tey nag jëm ci combat roi des arènes ñu xool fa wane di mujjee ki ba tam ndax ni daan def gars lay def Modou wala nu muy demee Babacar nag nu jeexale ak ki nga xam ne moom mooy Reug nee tamit du du ki nga xam ne moom mooy GFM entertainment Babacar. waaw waaw lu ne mën naa nekk de échappé mën naa ne bañ a échappé mën naa ne waaye man nag am naa droit ñaan yàlla mu bañ leen a échappé bañ mën ko tëgg parce que comme annoncé nañ ko mu dem ba ci seen ay logo ñu toog signé fa waxante fa vraiment ñu ngi ñaan yàlla daal ñu trouver ko adversaire bu fekkente ne guy gi la baax na bu dee keneen la baax na mais yàlla na rëg-rëg mucc seen ay a annoncé ba pare te itam ko parce que GFM tamit maanaam mbir mi am na lu ñu yokk ci làmb bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Babacar nag si kàddu gis naa Pakala muy dëkk ay adversaire Ndeye Coumba Fall. gis naa ko muy dëkk ay adversaire foofu de. Euh, waaw muy mbër moo xam ne moom daa bokk ci mbir yi dafa mel ni gars dañ ko xaw a fàtte moom Pakala bu Mbour montagne dafa war a bëri nag parce su ma juumul ba jógee ci Gris ba tey est ce que takkaar na ngeen ba boobu. waaw mi simple. noonu lutte avec frappe li simple moom ku ne xam ne ne ay la parce que miin na ko mais adversaire yooyu mu laaj war na mën a bëre ak ñoom moo xam ama neex la moo xam Moussa Ndoye la moo xam Malick Niang la moo xam Yékini Junior la ku ci nekk rek war nga mën a taxaw xëy bu la lamb boole ak moom nga bëre ak moom parce tamit mbër mu mag la moom paka la si kàddu loon leen tàggoo leen jox dig daje lundi incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère nuyu sama doom mooy Sophie Nour nuyu Tabara ak bébé Fa Babacar ne yaay wax këram léegi dama mel ni ko mbër soo déggee mooy nuyu Sophie Nour ak Tabara ak ki nga xam ne mooy bébé Fa ñooñu ay magu bal lañu te nag ñooñu nag samay xarit lañu Balla Diouf ñooñu samay xeet lañu. Ah. ñoom ñoo dem France nag moo tax ma leen di nuyu Babacar. waaw waaw man de boo nee Balla damay kontaan parce que yaag Balla moom yàlla def li gën rek laay ñaanaat yàlla si barke sama la Babacar Balla Diouf voilà Balla a a a a boole <laughs> waaw woon fa woon demaat ñun loolu la ñuy ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ñaan ajuma ji ñu nekk nii yàlla yàlla def jàmm ci àddina bi def ko ci Sénégal gi nu nekk dàqal ñu corona xam nga di nuyu tamit ñi nga xam ne nii Omzo bu Garga moom tey dama koy sama jigéen ñi mu ne ma góor ñi ci lañ bokk kon bu Garga di doomu ndey Garga Mbossé maa ngi koy bégge moom tamit di wax ne doomam day def anniversaire le 20 naa bi ñu jëm Oumane Balde non doom jaa fii ah, ñu koy souhaité naa ngi dégg waaw bu doon Espagne ñu dem mais tamit sama almaan bi du ma ko fàtte waaw doomu séeréer boobu maa ngi koy bëgg bu baax a baax a baax waaw sama naar ba ca gànnaar tamit Asi Diagne ñooñu samay jigéen la ñooñ dañu yàgg ak man wax dëgg yàlla ba Babacar commencé rek comme ni ko yenn ni ko góor ñi defe noonu lañ ko defee mais dañ di ay jigéen di ay jàmbaar di ay batante moo tax ma di leen ñaanal saa su ne rek di nuyu képp kuy jigéen di ci jiital nag sama waajur bu jigéen di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana ak bépp mbindaafoon bu tëdd ci suuf di nuyu sama soxna moom tamit di ko wax mention spéciale teneng di ko ñaanal jàmm nay ku ma fàle tamit di la nuyu di wax ne jigéen nga jàmbaar nga macha allah jigéen ju nangoo teel a xëy nga ju fonk liggéey nga loolu am na solo wala mooy problème bi ah li problème bi gémmiñ bi euh, gémmiñ waaw non sa waaw non gémmiñ gi sax garaawul parce que gémmiñ gi moom da di yow xam xama nit dafa am lu am solo loo xam ne gis nga nit li ne ci yow bu wax ko jotee wax ko nit du yor ñaari jikko déedéet boo waree wax ak nit ki ne ko lii daa ñuul ne ko dafa ñuul mu xam ne daa ñuul mm. su weexee nga ne ko daa weex bu ko defee ngeen passé ko dem ci leen mais li bon mooy di denc mer mm-hmm. ak di wax fii di wax fee yàlla nañu yàlla musal ci yooyu jikko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sénégal yàlla fi jàmm yàgg bu baax a baax mais waa Petersen encore une fois rek ba tilleen ba asalem ba fépp Saliou Khoule borom si duma ko fàtte ba leen di incha allah yàgg maar yaa ngi si biir